très, très content de, de vous revoir après euh, notre dernière victoire à la, à la Cannes. Donc, euh, ce fut des, des, moments extraordinaires, de très grands moments. Je crois qu'il euh, était important pour nous de partager cette victoire avec euh, le peuple sénégalais, l'ensemble de la population sénégalaise. Euh, comme vous le savez, euh, ce fut vraiment un bonheur pour l'ensemble du, du, du, pays. Euh, J'ai toujours dit à mes, à mes joueurs que gagner une compétition avec l'équipe nationale est, à plus, est différent euh, qu'un club. Euh, gagner une compétition avec l'équipe nationale a plus de, de, de saveur, a plus de répercussions en tout cas Euh, après ce sacre-là, je crois que tous les joueurs se sont rendus compte que ce que je leur disais était, était vrai. Nous sommes très heureux d'avoir euh, procuré autant de bonheur à, au peuple sénégalais, autant de, autant de fierté à notre, à notre peuple. Je crois que ces périodes-là resteront gravées dans la mémoire collective et dans l'histoire de notre, de notre pays. Mais le football euh, professionnel, le football de haut niveau, ne se nourrit pas seulement que du, que euh, à deux échéances très très très importantes pour le football sénégalais, qui sont les éliminations, les éliminatoires pardon, de en novembre et en décembre 2022. Cette euh, double confrontation contre l'Égypte, euh, l'équipe au pénalty en finale lors de la dernière CAN euh, s'annonce encore euh, rude et, et très difficile. Pour cette double confrontation, il nous a, on a pensé que c'était pertinent de repartir et d'être dans la continuité de ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, ce que les garçons ont fait durant cette, euh, cette canne-là. Euh, donc reconduire en réalité le même groupe à qui nous avons une totale confiance

Abdou Diallo Pape Abou Cissé Kalilou Koulibaly Cheikhou Kouyaté Fodé Ballo Touré Saliou Ciss Idrissa Gana Gueye Mamadou Loum Ndiaye Keita Nampalis Mendy Bouna Sarr Pape Matar Sarr Ismaïla Sarr Famara Diédhiou Boulaye Dia Habib Diallo Sadio Mané Abdoulaye Seck Pape Alassane Gueye Mambamba Thiam et Youssouf Sabali. Comme vous le voyez, il y a un retour, c'est le retour de Youssouf Sabali qui était est disponible avant la Cannes et aujourd'hui euh, qui fait son, son retour. À noter aussi, bien sûr, l'absence de deux gardiens qui sont Célidien qui est blessé et Alfred aussi qui est blessé pratiquement, je pense, euh, jusqu'à la fin de la, de la, de la, saison. Vous remarquerez aussi l'absence d'Ibrahim Mbaye, euh, due aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent et Lopi qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir, qui n'a pas pu être convoqué. Sabali fait partie de cette, de cette équipe nationale, Sabali fait partie de l'histoire de cette équipe nationale, donc je trouve que c'est juste normal, à partir du moment où il est compétitif, de revenir au sein de la, de la, de la tanière. Euh, concernant la planification, nous voyageons normalement dans la nuit de

euh, pour pouvoir jouer le, le vendredi. Retenez que lundi, c'est le début du stage. Il y aura une séance. Mardi, il y aura une séance. Mercredi, il y aura une séance à Marrakech. On voyagera le mercredi matin. Non, on voyagera le jeudi, pardon, le jeudi matin pour pouvoir, pouvoir euh, s'entraîner le jeudi après-midi au Caire et jouer le vendredi. Après le match du vendredi, on ralliera tout de suite Dakar pour euh, venir euh, rapidement préparer ce, ce deuxième match-là. Comme vous le dites, le temps est très très très court. Cool. Mais on a quand même 3-4 séances qui vont nous permettre, si vous voulez, de, de bien, nous, de bien nous préparer. Euh, une finale reste une, une finale. Donc, euh, nous avons joué contre, contre l'Égypte qui a, je crois, 7 étoiles, euh, qui est très fréquent, si vous voulez, dans ces, dans ces compétitions africaines, que ce soit en club, que ce soit avec leur, euh, leur équipe nationale. Cette équipe égyptienne, n'oubliez pas que

euh, qui est arrivé en finale, qui n'est pas arrivé en finale en, en, par, euh, par, hasard. Cette double confrontation, je le dis, je le répète, sera vraiment très rude et très, très difficile, notamment le premier match qu'on aura à jouer euh, au Caire. C'est une équipe revancharde, c'est une équipe euh, qui voudra aussi euh, se qualifier à la, au mondial, vu que le dernier mondial, ils y étaient. La Coupe du Monde est la compétition la plus, la, la plus grande en réalité la plus excitante, la plus euh, extraordinaire en réalité en termes de, de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller. L'Égypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi. Tous les grands entraîneurs ont envie d'être euh, au rendez-vous de cette manifestation internationale qui se déroulera au Qatar. Bien sûr que nous sommes champions d'Afrique, on a envie d'y aller. Nous sommes motivés. Les statistiques aujourd'hui ne nous donnent pas favoris. Pourquoi Parce que les statistiques disent qu'aujourd'hui, que toutes les équipes qui, sont, qui ont été champions d'Afrique par la suite ne se sont pas qualifiées au mondial. À nous d'être motivés. On sait que c'est un autre contexte, c'est une autre compétition. Et en réalité, l'équipe du Sénégal a été constituée pour aller au mondial. À nous de faire ce qu'il faut pour y aller. On a énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne parce que nous sommes conscients de ce qu'ils sont capables de faire. La physionomie du match l'a montré durant la finale, même si nous avons dominé, Sur certains coups, ils auraient pu, ils auraient pu marquer aussi. Donc euh, cette humilité qui nous a accompagnés jusqu'à présent, nous devons l'avoir malgré que nous sommes champions d'Afrique. Les challenges dans le football, il y en aura, il y en aura tout le temps. Pour l'instant, comme vous le dites, on est champion d'Afrique, c'était important de se battre. Ça faisait dix ans que nous travaillions pour l'être. Nous l'avons été. Maintenant, il y a la Coupe du Monde aussi, et cette Coupe du Monde aussi, le Sénégal doit y aller. Après la Coupe du Monde, on discutera, on se mettra autour de la table, on verra. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est vrai que c'est de se concentrer vraiment sur cette qualification de la Coupe du Monde. Il y a aussi des matchs où peut-être qu'on aura besoin euh, d'être beaucoup plus offensif. On sait que Bouna est capable de prendre beaucoup plus le couloir. Il y aura des matchs peut-être qu'il nous faudra être beaucoup plus défensif, où Sabali a ses qualités aussi de, de défenseur, même si je sais que Bouna aussi est capable de défendre proprement. En réalité, pour un entraîneur, c'est important d'avoir aussi d'autres possibilités. Et le fait d'avoir ces deux joueurs-là avec nous, ça nous donne encore beaucoup plus de perspectives. Et c'est intéressant en réalité pour, pour notre stratégie. Donc euh, avoir ces deux joueurs-là, c'est très important. La question que vous allez me poser, je la connais, c'est que est-ce qu'aujourd'hui c'est Sabali qui va être titulaire ou c'est Bouna qui va être titulaire Je crois que, ce que ça, on, ces choix-là, on les fera par rapport aux formes du moment, par rapport à ce qu'on voit aux entraînements. mais je suis très content d'avoir les deux pleine forme. Merci, on a largement dépassé le temps. nous allons enchaîner en wolof. Égypte euh, supporters yi dañ nekk seen ginnaaw euh, seen ginnaaw équipe mais je crois que ñun si suñu wàllu bopp tamit euh, am nañu expérience su genre match yooyu parce que depuis pratiquement six sept ans huit ans genre match yooyu dañuy dañuy dañuy faral di jouer. mais xam tamit ni que xale yi nga xam ne ñoom ñoo composé équipe bi tey ci boo xoolee ci équipe bi am na ay ay champion champion d'Europe am tey ay champion d'Afrique am tey ay joueurs yoo xam ne gagné nañu ay titre seen i seen i club donc pression en réalité boo xam ne ci gradin yi la nekk pression boobu ci gradin yi lay lay lay yem ñun lu ñu lu ñu soxal lu ñu lu ñu gën a amal importance mooy que pendant quatre-vingt-dix minutes ou pendant quatre-vingt-quinze minutes luy xew ci te ci rectangle vert bi loolu rek moo ñu moo importance mais bañ a fàtte nit que bu ñu amee tamit engouement ak pression bi moom dinañ ko sentir au niveau des gradins parce que je me rappelle en 2002 même bu dee joué sax euh, demoon naa ci stade boobu gis naa tamit stade boobu te joueurs yan yoo fa joué yëpp joueurs yan yu mag yan yoo joué yëpp ci stade boobu xam nañ ne stade boobu c'est stade de la terreur parce que y a des supporters il aussi un engouement autour de ce de cette équipe là mais comme ni ma leen ko waxee rek gaynde warul tiit gaynde warul ragal ñun lu ñu amal importance mooy football moo ñu fa yóbbu te suñu xel suñu xalaat yépp dafa war a yem ci football pas seulement communication bi wala débat médiatique bi wala nit ñi lu ñuy wax ci autour autour du match bi euh, bañ a fàtte nit que tamit ni que pression boobu ngeen di wax nii tey nii fii nii ci stade Caire bi am nañu yaakaar ni que bu ñu ñëwee suñu stade bi fii nii Abdoulaye Wade pression boobu tamit ñoom dinañ ko yëg parce que suñu nouveau stade bi tamit xam naa ni que supporters yi dañ ñëw pour supporter ci match décisif boobu nga xam ne mooy match de qualification bi. bonjour coach sama question day dellu ci Kero est-ce que ça représente fa joué parce que dañuy fàttaliku 2019 joué woon nañ fa mais liñ fa jëlee woon nekkoon mooy ci wàllu final bi ñu ñëwaat ci retouru Sabaly lan lay représenté ñaar entre euh, Égypte ak euh, ak Sénégal mën naa wax ne que respect moom sa am suñu diggante euh, man je ne me rappelle pas en tout cas match boo xam ne Égypte ak Sénégal joué ko mu demee naka sudul noonu te li ma gëm mooy que ñaari match yu ñuy dem def noonu tamit ay match yoo xam ne rek égyptiens yi respecté nañu te ñu tamit respecté nañu égyptiens yi di profiter du nuyu égyptiens yi yëpp parce que tamit bi ñu fa demee 2019 wax dëgg yàlla dëkk boo xam ne la dañu mës a accompagner hôtel bi ñu nekkoon vraiment ay nit ñu baax a fa nekkoon euh, nit ñoo xam ne accompagner nañu équipe bi bëgg nañu équipe bi donc euh, je crois que lu gën a am solo mooy que ñun ñu concentré wu ñaari match yi bokkuñu contexte yi bokkuñu 2019 euh, dañ demoon mais joué wuñu woon contre Égypte bii nag Égypte nañuy amal affaire te xam naa ne égyptiens yi c'est des gens vraiment très patriotes day nekk derrière seen équipe bi accompagner seen équipe bi vraiment def tout pour que seen équipe gagne donc ñu ñoo war a dem foofu vraiment ak euh, humilité bu mat mais concentration ak confiance boo xam ne yàgg nañ ko am si suñu si suñuy déplacement donc amuñu si benn sikki sàkk am nañu yaakaar ni que incha allah dinañ fa dem ak jàmm yàlla may ñu fa ndam ak jàmm mais xam nañu xel ni que dëkku jàmbur surtout dëkku bu mel ni Égypte match bi warul yomb te du doon match bu yomb yàlla nañu fa yàlla may ndam si laaj laaj laaj bi. waaw retour bu bi moom tontu naa si woon encore je crois que Grégoire ak euh, euh, posé nañ ma si question boobu comme na ma ko waxee rek euh, Sabaly moom jour boo xam ne la yàgg na ci tanière bi ñëpp xam nañ ko si moom ak Bouna tey ñu constitué benn benn duo boo xam ne bu bu intéressant la tey pour man entraîneur am xale bu mel ni Youssouf Sabaly am xale bu mel ni euh, Bouna Sarr plus la ci équipe euh, ci équipe nationale bi parce que dina am ay match yoo xam ne xëy na euh, Sénégal dafa war a gën a mën a défendre Sabaly défenseur boo xam ne la ñëpp xam nañu ay qualité am Bouna Sarr tamit bu dee tey soxla nañu équipe boo xam ne war na nekk équipe bu gën a offensive Bouna Sarr am na potentiel boobu même bu dee xam naa ni que défensivement tamit défenseur la je loolu vraiment possibilité yooyu pour entraîneur possibilité yu am solo la euh, mën a am mën a mën a mën a mën a am confiance ci benn joueur mais am beneen confiance encore ci beneen joueur loolu yëpp c'est intéressant parce que daf lay jox encore possibilité yu gën a mag ci ci composition équipe bi di féliciter Sabaly parce que liggéey moo tax ba mu dellu si ci ci tanière bi xam na ko bu baax il ne vient pas à l'inconnu donc di ko di ko ñaanal rek mu dal ak jàmm. Euh, merci beaucoup coach Pape Faye Dieng journaliste à la TFM euh, di la félicité féliciter ñëpp ñu nga àndal ci saako bu mag bi euh, lu ma bëggoon laaj rek da ko waxoon sànq ci français mais waxoo ci wolof pour un télé ak rajo yi importance su match bi gannaaw ba nga jëlee Coupe d'Afrique yaa ngi wax ne kalifa Coupe du monde dafa nekk lu am solo leneen lu ma ciy ñambaase mooy Krépin Diatta fan la tolloo ak tamit ci blessure bi yow yan nouvelle nga ci am merci. waaw Krépin moom. ñëpp xam nañu blessure bu mu am du blessure bu ndaw blessure bu blessure bu mag la boo amee tey euh, tubaab bi lu ñuy wax rupture des des ligaments croisés au jono mu nekk mën naa wax ni que blessure bu gën a mag ci ci footballeur euh, il y a quelques années genre blessure yooyu boo ko amee mën naa wax ni que dootoo footballati waaye tey nu ma ko waxee sànq rek je crois que sur ces vingt cinq dernières années lu gën a avancé ci mbirum sport lu gën a avancé ci mbirum football. mooy médical bi euh, tey je crois que ce est important mooy que ñu war ko mën a bàyyi ak club am mu mu reprendre entraînement yi ak jàmm ak salaam Krépin ñëpp xam nañu important am ci équipe bi incha allah si yeneen échéances yi dinañu xool forme am pour que justement bu mënee dellu si vraiment équipe nationale bi mu dellu si ak équipe nationale bi euh, beneen question bi mooy. l' su match bi. importance su match bi moom euh, wax naa ko sànq ci kàllaama nasaraan. tey boo nekkee champion d'Afrique ñëpp ñu ngi xaar ni que nga dem coupe du monde euh, coupe du monde nag mooy mooy mooy compétition boo xam ne mën naa wax ni que ci mbirum football mooy compétition bu gën a mag tey footballeur boo xam ne mi ngi joué te deful coupe du monde maanaam am na lu ko manqué entraîneur buy entraîné te joué wuloo gungewu équipe coupe du monde am na lu la manqué mu nekk euh, compétition boo xam ne Sénégal war na fa dem parce que adduna yëpp ñu ngi xaar Sénégal dem fa Euh, Afrique yëpp ngi xaar Sénégal dem fa mais yàlla def na ni que ni Égypte nañuy joué muy équipe boo xam ne dóor nañ ko euh, dernière CAN bi ci série tir au but mu nekk équipe bu njaxlaf tamit mu nekk équipe boo xam ne équipe bu revanchard lay doon premier match bi seen réew nañ koy joué ñëpp xam nañ ni que dem Égypte gagné fa du loo xam ne lu yomb pression bi dina bëri trop si ñun waaye je crois que am nañu moyen yoo xam ne war nañ mën a gérer pression boobu. maanaam concentré bu vraiment si lan moo nekk ci terrain bi lu xew ci terrain bi lu xew ci biir terrain bi je crois loolu rek moo moo ñu solo di ñaan yi yëpp fépp fu ñu mënta nekk ñaanal ñu pour que justement Sénégal am ndam si ñaari match yooyu. jërëjëf maanaam. waaw planning bi moom comme nu ma ko waxee sànq ci kalama nasaraan euh, normalement staff bu nekk fii euh, suba nañu war a voyager pour dem Marrakech Marrakech foofu mooy suñu. suñu centre d'entraînement foofu la ñuy foofu la ñuy regroupé wu euh, lundi bi normalement booru 19 heures nañuy entraîné jours yi normalement le 15 le booru 15 heures nañu war a atterrir 19 heures mooy suñu première séance d'entraînement mardi bi tamit 19 heures mercredi bi ñu entraîné suñu dernière séance d'entraînement Marrakech incha allah jeudi 10 heures nañu war a décoller Marrakech pour egg Caire ak salaam ak salaam entraîné foofu jouer vendredi. ci guddi vendredi ak samedi bi ñu ñëw fii Dakar pour préparer ñaari beneen match bi pour le le 29.